Brothers and sisters, ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Quant à moi, je vais hyper bien, alhamdulillah. Comme vous le voyez, c'est votre bien-aimé Tafash DJ, l'animateur autrement pour vous servir à temps, à mes chers fidèles internautes de Siwolko TV. Hey guys, vous le voyez, nous sommes ici monument de la renaissance africaine. Nous sommes lu Lan préparation, installation. Bessi Cap Vert avec Sidi l'international, le golden boy de la musique sénégalaise avec Subatel Music. Guys, dama bëgg tay découvrir dox ndank ah ngeen xolal sen bop gis gaay yi ni ñuy waajalee bëss bu ngandé bi bésu lebu yi les lébu ndooy maari mara kuy fa japp jaan salam salam jitt salam salam eh mané ne ak salam ci yéen a ah, gaay yi dama bëgg jël def micro territoire fi ci monument de la renaissance africain Bercy Cap-Vert bi xol ba xam Sidi Diop date bi ndaxam Sidi Diop le 14 le choisir ñëkon na jël le 7 ñu mujj ko pousse à à cause de tac tac tac tac tac ñu la date est-ce que date du mu jël c'est le 14 gars entre 3000 le VIP 5000 VIP prestige 10 000 salon sur réservation gars 150000 150 000 francs les gars ñu tout tous avec Gomis l'international. sur le dossier TV ñu ngi fii ak sama benn copain mon ami Comment ngi lay siyaare. ça va bi alhamdulilah. tey ma doxantu fekk le ci monument de la renaissance africaine Qu'est-ce que la fi ah, juste une visite euh, courtoise quoi. Hmm. Découvrir autre chose. En plus, euh, monument, c'est ça représente l'Afrique, quoi. Rarement, je dis monument Donc, euh, raison pour laquelle je suis là, juste pour visiter, voir quelques éléments à découvrir aussi. Ok, je vois. Pour moi, Liko Molef On dirait que Sidi Diop sera là le 14 octobre, Inch'Allah. Est-ce que mon ami Yangifi? Ah, peut-être que je sois là. Ah. ça dépend yaa ngi gis gars yi ñi ngi ci installation bi jàmbaare lool nekk di teg ngandal maami pojum extraordinaire kon il nous promet du lourd. si si yow foo dëkk si Dakar. maa ngi Medina Medina laa nga dëkk. waaw kon yow lébu nga. non non non alpulaar la je suis étudiant je suis là. ah alpulaar min salmini moon mi salmini fuurankoɓe fof <laughs> wame gomise on a un gentle lady ici devant nous miss no tudd

fatt ñëw seetaan mais ban son Sidi Diop moo la gën a neex yaa ngi dégg sa xarit bi jógee ba Casamance ah waaw déggal loolu. Sidi yëpp neex na. ah son yëpp neex na. yow yow yow déglu ma dama bëgg nga ñaan ko benn son yow bu ñëwee fii mu laay fal la ko. pour yow kese. pour man kese waaw comme kese na ma woy ko. ah mu way la. xaritam bi jóge ba Casamance mais kii il paraît que ni moom dafa maîtriser son Sidi Diop yëpp. non maîtrise ma son Sidy Diop de. mais li muy wéy moo ma neex rek. daf la saf. waaw mais yow yow yow yow est-ce que bëggoo remplacer Banaya. si bëgg naa ko tu connais Banaya. non je connais pas. ah xam nga ko bëgg ko remplacer. ah waaw. mais mën nga lëmbal. waaw. lëmbal bu saf. Mm, mm, mm. gani ma <laughs> mais foofu la yow ñu ngi lay xaar fii ci Bercy Cap Vert bi. avec les Lébou Ndoye Marie Marème Ndoye. waaw ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax a baax. waaw je vous dis que merci beaucoup aussi bay suba dara du yomb fii de. dañ ah. fi wàccee ba.

Euh, semaine bi passé le set mhm. yàlla jaam ak pexem yàlla ak dogalam ñu amoon naxar bu tiis bu tegu woon suñu kaw ñu koy wax soxna moomi mhm. doomu Papa Thione mag ci Wally Seck bu baax macha allah yàlla def mu wàññeeku ci jeudi boobu mhm. mënuñu woon def nag lenn lu dul andi lu lépp loo xam ne tay programme la woon parce que naxar bi suñu naxar la ni mu doonee naxaru famille Seck doon ko ci naxaru famille Guèye noonu la doonee ñun ci naxaru ñun famille ñi nga xam ne ñu ñooy waa suba teel parce que àdduna moom de yamul ak leen moo tax bi loolu amee ci immédiatement dañ ne dañuy annuler lépp luy activité dañ koy annuler ak lu mu mën a doon ànd ak ñoom ci naqar boobu noonu parce que nag quoi qu'on puisse dire baayam am na lu rëy loo xam ne da ko def ci musique ndax Thione sekk dem si yàlla bi dafa am lu rëy lu mu def ci musique kon bu doomam wàññeekoo mënuñu woon def leen lu dul arrêté lépp luy activité di leen profité tamit di leen ko jaale di ko jaale jëkkëram bi nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany di ko jaale Wally Seck bi nga xam ni bu rakk la ci moom di ko jaale Papa Thion di ko jaale suñu yaay jaaga xam nga loolu daal moo taxoon ñu annulé woon euh, programme bi samedi le 7 bi ñu ngi nii tey la vendredi bi ñu ngi ci dernier réglage di woo gaa yëpp nag di woo gaa yëpp. si gis sa wàllu mon ami. jour J moins un. jour J non du ma ne jour J matatul matatul heure fi nii moom dañ naan ay heures ci des. que des heures. ay heure rek a ci des. ñu yëngal Bercy Dakar deuxième édition ak Subatel musique and ci US Wakam parce que boo gisee fii ni mu démé rek nga wara xamni li ni daanaka neex na ba pare di ñaan yalla comme dañu né ci dernier réglage suñu borom dimbali ñu kàttanal ñu ba lepp li nga xamni ne nañ ko ci bës bi te yalla nañu ko yalla matalel di wo ñëpp nak képp ko xamni dal yaangi parce que dekkul lebu lañ ñu dëgg la ndax ku ne wakam ne dekkul lebu té buñ Bercy Cap Vert. Uh-huh. Cap Vert moy dakar kon ba en commençant Bargny ba fu ginnaw barni ba ñew ba Ngor Wakaam Yoof Wakaam fépp fule bu dëkk ñi ngi lay wo nga xam ni bés bii sa bëss la té li ben yoon la ci at bu amé ren bala amati rek. mais pourquoi le 14. wa mais le 14 bi moy li ma la wax. dat bi est ce xol ngeen ko bu baaxa baax. wa mais dat bi jëmuñ xol ak ñak xol ñun te eh, dépassé nañ yoon parce que dañu jappone la set waxna la. impact école ni mu ubé ni wa mais xam nga impact école bék yoy yëpp d'accord élèves yi ibbi nañu ñi ngi jang mais terewul aussi tamit ñom ñi ngi leen wo ñom ñep parce que tamit quoi qu'on puisse dire. ñi wara ñew dinañ ñew waaw ñi wara ñew dinañ ñew mais Sidi job goné yee tok toog. waaw nee leen mooy golden boy. le chanteur du peuple. kon peuple bi yépp wara a wuy si. peuple dépp koy wuy si. moo ko war waxuma la élève mais professeur sax dañuy ñew ba li nga wax directeur école yi dañuy ñew kon dal yeen la 14 bi baax ba suba. inshallah allah. bu suba di ngeen gis lu bees tak tàq lu ngeen mës a gis ci spectacle son et lumière non Sidi moom li ngeen xaar ci moom moom yéen xam ngeen ko du ma leen ko wax ndax Sidi chaque événement bu bees ak ay yëfam yu bees li ñu waaye bu rëy waaye lii loolu Banaya déggoo ni ma la wax Banaya fii seenam la Banaya bu ñu ko xamee c'est grâce à Sidi Diop rakkam la Sidi Diop papam la waxuma la Banaya mais lu raw Banaya Banaya na xam ne fii këram la bu ñëwee daa ñëw war a ñëw bu ñëwul xool daa xam ni daa war a ñëw rek te xam ni fii këram loolu laa am lu ma ci wax. jaajëf mon ami le retour de Banaya sur scène. waaw mooy comme li Magor di wax rek euh, keneen ku dul Banaya ñu ngi ko ciy xaar donc euh, c'est benn événement la boo xamante ne dañ ne Bercy Cap-Vert ñu ngi ci deuxième édition bi ñu def ko fii benn place mythique mu monument de la Renaissance donc doon na lu am solo ci ci carrière artiste bi euh, ci label bi. liggéey bi gis nañ ni depuis lors yéen a ngi fi. coono waaw ah, dépassement financier non parce que en tant que chargé de la production du label Subotel, donc euh, aussi euh, organisateur de l'événement, dépense euh, avec le PDG grand Alfred Batelli, président US Wakam des personnes vraiment à saluer parce que logistique bi millions ay millions kon tout est impec actuellement. instant yi pare nañ. rëkk ngeen junj non lo bañ mu jot mu jot bu ko wutalaat. lel mbergaat dafa paré voilà mu nonu mo moo très cher. donc di jox ñep di rendez-vous ce samedi 14 fi au monument la renaissance avec le golden boy xam nga de la musique sénégalaise. Merci. est-ce que dinañu indi lu bees. Sidi bu ñu tee fi ñu daan té pas lu bees gis nañu andil yu bees. Hmm. mais pas lu bees yu bees la ñu et que surprise la yo xamanteni machallah vu album bi muy waaj a ku ñëw ci bis bi di nga xam ne spectacle moo am fii di ko àndax aussi euh, un des DG du label muy Mogor euh, nga xam ne macha allah mu ngi jàpp ci liggéey bu baax a baax depuis ci suba ñu ngi fii lekkuñu ñu naanuñu et que c'est comme ça Subatel c'est une famille waaw c'est une famille c'est ça. mais gars nee nañ euh, communication bi des na quoi. xam nga xam nga dafa am ñaari forme de communication dans la vie communication bi nga xam ne da nga koy jaayal sa bopp ak communication bi nga xam ne nit ñi la koy jaayal. donc nous, on a préféré le nit ñi jaayal seen bop de événement bi mu ngi donc c'est ça l'importance parce que xolé on euh, billetterie bi instant ñun problème la parce que euh, nan lañ mëna def ba ñi nga xamné ñu ngi commander ay naka lañ a def bañ bañ bañ mën ci gis seen bop kon bi non instant mom carré instant ñu ci benen facette. fat ngeen fep lepp lepp waaw fii nag xam nga instant on avait prévu euh, maximum 15 000 personnes mais nag ak euh, logistique bi DG Magor mii on essaie de voir nu ñu ko gën élargir ba nga xam ne ku ci nekk rek dina si gën a mën gis parce que concert populaire Là. donc jeunesse bien comme. voilà. non pour tiki yi euh, je pense que ah, affiche bi ngeen di jàllale ah, numéro yaa ngi fe dañuy woote ci numéro bi inshallah allahu rabbi bi nga xam dess des na wala bu amé billet dess des ñu mën cee jariñoo incha rabbi